di bàyyi xel Baol TV xam ngeen ne tey jii la jeudi le 3 février 2022 ñu ngi fi nga xamante ni moo di Porokhane eh, yemoo ko tey jii alxamis ay bis rek moo des suñu digganteeg eh, li nga xamante ni moo di màggalu Porokhane mbokk yi rek di ko waaj fépp ci àdduna bi waaye di ko waaj fépp ci réew mi eh, jamono jii nag ñuy wax ak yéen dëkk bi yëg li nga xamante ni moo di màggal gi yéen a ngi gis bis yi ñu ngi wàccee bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoo di jaaykat yi ak ñenn ci ay ñoo xamante ni dañoo ñëw ngir màggas yi teel a ñëw li nga xamante ni balaa dëkk bee xat ñu mën a dal dal muccuwaay bu am solo waaye ku ne xam na ne tey jii euh, ci ci alxames ji Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne Souhaïbou dafiy amal li nga xamante gi lépp loo xamante ni tukkee na moom lañ fa tukkee moom lañ fa jëlee ak moom lañuy waajale

jërëjëf mbokk yi maa ngi taxawaat ak jën jëwriñ fekk ko fii nga xamante ni moo di Porokhane ku baax maa ngi leen nuyu. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah. naka la. man maa ngi tudd Modou Ablaye Thioye. sëñ Modou Ablaye Thioye ñu fekk la fii poroxaan ci wàccaayu màggal gi jamono ji une semaine ndox suñu diggante ak màggal gi nan ngeen di dundee màggal gi ak wàccuwaay waa sant yàlla rek ak moon ko bu baax a baax ndax bis la boo xam ne moom bu ñu sañoon chaque at rek sunu borom day def ñu amal ko fii ci dëkk bi ndax sant maam jaara Euh, lu lu ñuy neex la ñun doomu dëkk bi rawatina liggéey bu rëy bi nga xam ne liggéey na ko suñu borom muy soxna euh, suñu borom fayee ko li ma ko fayee tey ba doomu aadama yi di jógee fu nekk di ñëw loolu daal namoon nañ ko bu baax a baax waaw ah, namoon nañ bis daal bu baax a baax a baax. ñu gis ne ñu ay ay ay drop nga xam ne dañuy di ñëw dañ koy soxla est-ce que euh, dëkk bi ñu ngi ñëw di ko jënd si bu baax a baax jamono bi nga xam ne maa ngi di ñëw ba pare. waaw waaw ñun moom wax dëgg yàlla. Euh, ñu ngi ciy gis suñu bopp ndax euh, gis nañ ne lii clients yi dëkk bi dinañ ko soxla rawatina euh, ñi nga xam ne dañu ñëw ci dëkk bi ndax ay napp la ak ay darap ak ay yére yoo xam ne defe naa ne ku ñëw ci dëkk bi boo ko indaaliwut sax boo ñëwee di nga ko fi fekk ni kon daal ñu ngi ñaanal gan ñëpp ñu yegg si ci jàmm suñu borom def ñu nekk fi ci jàmm ba delluwaat ci jàmm. daje fee ngërëmal soxna si barke Sëñ Tuuba. gis nañ ne at bari ñu daan ñëw lépp loo ne dañ koy jëfandikoo dañ koy jënd indaale mhm. jamono ji mën a dalal seen xel ci ñëwee lépp loo xamante ni bu ñu a am fii ci. waaw loolu moom alhamdulilah ndax euh, léegi defe naa ne dëkk bi moom suñu borom def na na yokku na yokk bu am doole ndax soxna si foo mu tëdd rek sunu borom dafay def yokkute ak tawfeex def naa ne lépp lu nit ñi daan ñëw di jooy rek euh, tey mën naa ne sunu borom dogal na moom léegi wàññeeku na bu baax a baax ci li nga xam ne nit ñi dañ faral ñëw ta duñ ko am na kon nag ñu ngi ñaan daal képp koo xam ne yaa ngi ñëw rek lépp loo mën a indaale ci jumtukaay it nga indaale ko waaye lépp loo xam ne jàpp nga ne boo dina la diisalit boo ñëwee fii moom suñu borom def na ne mu ngi fi kon ñu ngi ñaanal ñëpp rek ñu ñëw ci jàmm incha allah. jërëjëf mbokk yi ñu ngi fii ci marché Porokhane ba léegi euh, gis ngeen ne sànq ñu ngi woon ci jaaykat yi waaye ñëw nañ ci tailleur yi ndax ku xam ne màggal buñ ko waxee wax sañse jamono ji eh, ku nekk da ngay bëgg a ñaw lu bees ngir waajale ko bis bi maa ngi fii ci benn atelier ku baax maa ngi lay nuyu. waaw sëñ bi ñu ngi lay fay. tur bi naka la. Serigne Saliou Couture. Serigne Saliou Couture ñu fekk la fii ci marché bi nga tiim tiise yi macha allah jamono ji une semaine dox suñu diggante ak màggal gi ñaw yi nan fan ngeen ci toll. waaw instant bi ñu ngi ci ñu ngi ci kawam nekk ci kirti kirti affaire instant bi mu mënti yomb wax dëgg fa yàlla. est-ce que tamit di ngeen ñawal mboolem client yëpp ndax dañuy dégg ne parfois magal gi bu ñëwee da ngeen di jël loo xam ne mun leen ko ñëw yenn clients yi ngeen tardé leen merloo leen. non man loolu la ciy am nag mais nag li ci ëpp gars yi ñooy xemem quoi parce que tey kii maa ko tàmm di ñawal tey tamit mën na ñëw bëgg ma ñawal ko donte nee naa ko baare naa sax mooy loolu. waaw daf may forcer parce que xëy na man la suwaa tamit te duma ko mën a gàntal te su noonu sama sago tamit ma dóoral ko. mais problème bi mooy que ni courant bi réglé wu tamit te ba ma koy jël am naa yéene defal ko mais gis na ni mi demee après. kon ci sa biir kàddu mën naa ci jàpp ne courant bi li muy coupé. dafay bari bokk na ci leen naqar yéen téeri fii. waaw courant bi moom bu ñu ci mënoon a dimbale parce que boo seetloo fii mën nga fee fanaan ba bët set te boo xoolee diggante bi ngay liggéey du weesu trois heures de temps. lépp courant bi di coupé waaw lépp courant bi di koy coupé parce que gars yi dañu bàyyi ba effectivement bi sës ñu bëgg profité liggéey bi. te problème bi nag ci loolu lay nekk moo tax loolu mooy ñuy arrivé ci lu bari nag. kon jërëjëf mbokk yi nga xam ne ñoo yor loolu kon nañ ci dimbale suñu mbokk téer yi ngir ñuy mën a àgg li xam ne moo di sañse yi bi muy ren 2022 yan modèle ngeen ëpp lu ngeen di ñëw. waaw instant bi nag moom wàccaay màggal li ci ëpp na grand boobu ngay dóoral gars yi grand boobu tay baas waaw dañ koy bëgg quoi gars yi dañ koy bëgg waaw ñoom ñooy soxla kii boobu quoi. jigéen ñi ñoo ëpp luy la wala góor ñi. wa place bi nak mo wax deug fi yalla jigen ñi lañ fi faral di ñawal nak mom kon yéen ñi ngeen faral jigen ñi <laughs> wa non la demee nag macha allah sin saalu jërëjëf waaw fii ci marché bi nga xamni fi la jaayé jaayee xeetu lujum yi ak euh, kani salade yi comme comprom affaire yoy non soxna ci euh, ñi ngi ci waccay magal gi far ngeen toll ci bagage yi bagage yi dafa sér rek ndax ñun bagage yi ñu ngi koy jëlee kaw la waaye marchandise moom seer na waaye bu ñëwé transport bi daanaka bu ñu ñëwee daanaka liñ ci am du bari ndax man sa ndi boo waxee ñu ne ci kaw la yokkoo looloo tax waa nag buñ sañoon liggéey soxna jaara def lépp mu yomb ndax ñun bagage mu yomb moo ñu gënal amal intérêt ndax mu séeree gars yi dañ koy jëlee ji ca kaw ñëw di ko indi daayira di ko indi buñ sañoon lépp fii lañ koy jëndee waaw waaye mën nañ xam ne mën nañ euh, jàpp ne lépp loo xam ne euh, gan yi ñëw danañ ko soxla ci wàllu waañ bu ñëwee fi danañ ko am incha allah. loolu moom bëgg nañ ko xanaa ñi dem Kaolack amuñu ko ndax ñun Kaolack moo ñu gën a jege ndax buñ sañoon lépp lu ñuy jënd lu ne dañ koy jëndee ji Kaolack ndax xam nga Touba dafa sori ak yeneen régions yi duñ fa mën a jëndee waaw ndax ñun fii amul dépôt boo xam ne mën nañ fi jëlee bagage waaye euh, euh, fi ñu toll nii euh, buñ li ñu mën a jàpp mooy màggal gi li ci des une semaine la jamono ji li ngeen war a soxlawoo ci wàllum njaay lépp ñëw na wala am na yeneen yu ngeen war a séentuwaat. ndax am na orne yoo xam ne dara ñëwagul ndax bagage orne yi ñëwagul buñ sañoon bagage orne yi daayira yëpp dañ koy jëndee fii ñu teg suñuy taabal bu ñëwee ñu waxaale ñoom waaye nag benn ñëwagul moo tax ndax boo gisee matale wuñ leen ndax bagage bi dafa seet ne nii am na loo xam ne ñu ko waroon a mën a jëli camion yi di ko fi indi ñu ñëw di installé di ko fi teg waaye dañuy dem oto yi duñ ko mën a indi duñ xam ne ñuy def loolu rek mooy ñuy tardé suñu bagage ndax tey waa Soxna Bally bi ñëwee bëgg nañu ndugg lépp amee ko fi waaye mën a mataluñ ko ndax mënuñ koy matal ndax amuñ oto yu koy mën a indi fii. daal li ngeen di ñaan mooy ñi nga xamante ni mën nañ ci jàpp nañ ci jàpp ngir li ngeen di soxlawoo ci wàllum bagage lépp ñëw. waaw moom mu ngi ñëw ndànk-ndànk. waaw gan yi ñu ngi leen a doolee sant rek di kontaan ci ñoom ndax ñoom bëgg gi bëgg poroxaan ak maanaam di ñuy ñëw di siyaare soxna jaara di fi ñaan lu sel lu dal waaw bëgg fi ñaan di si sàkku ñaan ñu ngi leen di ñaanal ñoom gan ñi ñaan giñ fi ñaan yanul ko soxna jaara at nangul leen ko ak sëñ Muntaxa Mbàkke yal ko fi yàlla yàggal ci dara borom Tuuba waaw jërëjëf mbokki internet yi mbokk yi bàyyi xel Baol TV ba tey ñu ngi fi ci proxane edition 2022 suñu ak magal gi ayu bis rek mo ci dess manam une semaine euh, gis ngeen marché bi li nga xamanteni ni mo fa nek euh ci euh, marchandise yi nga xamanteni nit ñi war nañ ko soxla bu ñu ñëwé waye tamit euh, ku ne magal ne berne ku ne berne nak nag tarkaale ñi ngi fi ci daral gi fekk fekk mag ñi nga xamanteni ñom ñofi nek gis ngeen nak yi tarkala ñi ngi ni di yewé ñuy xaar ñi nga xamanteni ñoo di kinaay sëñ bi ma ngi leen nuyu. alaykum tur bi naka la. Adran Ka. Euh, euh, ñu fekk la fii ci daralu Poroxaan euh, suñu digganteek màggal une semaine moo ci des est-ce que mën nga dalal xelu ñi nga xamante ni ñoo fi ñëw di jënd nag ne bu du ñëwee lu ñu soxla ci nag dinañ ko mën a am incha allah. waaw oh, macha allah nay dañu ngi fii mhm. am na nay yu baax yu nekk fii mhm. nay yu qualité te loo indi fii nagam mu ngi fii nay nag seer nañ lool lool waaye nag loo indi fii bu sooba yàlla da am nagam. boo bëggee nag sept cent mille mu ngi fii nag six cent mille mu ngi fii nag million sax mu ngi fii boo inde fanweeri junni da nga am nagam waaw macha allah daal nag moom ku ñëw fas na yéene nag du manqué fii ah, ah, dañ daan gis ñu bari dañ daan am ak jaaxle eh, ci bu ñu ñëwee Poroxaan am jafe-jafe am nag ba dañuy obligé jënd ko ci dëkk yi ni jóge yi sori di ko def ci euh, oto yi eh, léeg-léeg sax nga am nag yoo xam ne dañuy dee ci kaw oto yi ak yu demee noonu lan ngay wax ñi nga xamante ñooy jóge ci yeneen dëkk yi war a ñëw Poroxaan wa magal darta taamu nañ ci nagu porokan nagu porokan yi ñu ngi fi ku bëgg nagu porokan yi bo ñëwé porokan da nga fekk fi nag yi ñu yar porokan ñu jaali ko ci porokan liggéey ko ci porokan nga ñibbi ci jëm ci porokan muy porokan muy magal porokan kon dal euh, mën nañ japp ne ren nag dina am nak mom dina am macha allah bi euh, lan mo koy waral euh, ñaak xontu lay doon all bi dafa amul ñax wala ngoñ bi dafa sér wala séray bi nay ñoo duul ci Sénégal xam nga Mali ñoo ñu doon jox ay nak te Mali ren dañ ko upp bu ñu am li mëna doy ñu dolli mag nag porokaan yi ñu dolli ci nag Casamance yi ñu mën a doy ndax nag yëngu fi yu ci bëri Casamance la ñu obligé dem jënd leen pour bés bi bañ a manqué nag waaw loolu la. kon da ngeen dem fii ba Casamance ngir euh, porokaan ñëpp mën a am nag. heure bi dem oto bi mu ngi soog a ñëw. jóge Casamance jóge Casamance. Euh, kon lan ngay wax client yi ñu gaaw gaaw ñëw wut a manqué. gaaw ñëw si nag nga bañ dugg si ne ci oto yi ña ngay dugal say nag di sonn sàmm yi di la sonal. Mhm. nay yi di di daañu biir oto bi nga ñëw fii Porokhane jënd nag Porokhane yi. Mhm. loolu lañ ci eh, lañ jëlee woon fii ci daral gi kon nee naa leen eh, nañu gaaw ñëw fii ci daral Porokhane gi ñu ñëw nag yi nee nañ un million sept cent mille six cent mille lépp lu waay am rek boo ñëwee da am nag kon ak Baol TV nee leen dara du leen ëmp kon ñu ngi leen jox dig daje ci yeneen étape ñu waxtaan ak yéen jaajëf. fii ci Porokhane ci daral gi macha allah xar yaa ngi nii taxaw eh, jamono ji est xar am na comme ni ñu koy yaakaaree fii ci màggal gi. xar de am na tuuti frontière Mali daa tëj mais xar am na alhamdulilah tuuti tuuti. sant yàlla dina am. Eh, kon mën nga dalal xelu ñi nga xam ne ñoo war a ñëw màggasi ne bu nu ñëwee luñ soxla ci xar jërul ñu koy jënde faneen mën nañ ñëw ba fii dinañ am xar. danay am danay am incha allah danay am xar incha allah ko ñëw fii dana am xar bu soobee yàlla. xar yi ba seerut sant yàlla amul benn problème xar mu ngi ci mu ngi ci prix bu yomb fii am na jar fukk ak ñett fukk ak ñeent fukk ak juróom en tout cas prix yëpp am na fi parce que parce que sam yi yëpp mu ngi fii mën nañ jàpp ne képp koo xamante ni bëgg na xar bu ñëwee fii lu mu yor rek allah dina mën am xar. waaw dina am xar mais yow nga war a sa loxo de pour nga jëndal xar. yow nii. <laughs> waaw man bëgg naa xar. waaw yow nii war nga bay jëndal xar nga sa ñu la xar mais yeneen yi bu ñu def ko allah. waaw lan moo tax man ngay sama sama ah parce que ku baax la rek sama la war naa la. <laughs> kon jërëjëf Ahmed. ok merci waay. acca ba tey mbokk yi maa ngi fii daralu Porokhane daje fekk benn client boo xam ne dafa ñëwoon wët si xar eh, ku baax maa ngi leen nuyu. maa ngi di la nuyu. tur bi naka la. man Moussa Gange Porokhane Tukulóor. Moussa Gange Porokhane Tukulóor Moussa Gange eh, ñu fekk la ci daral gi nga wut si woon xar xar yi bi nga ñëwee loo fekk xar am na wala amul. xar bëriwul de wax dëgg yàlla xar moom bëriwul par moom daanaka bëriwul amul de waaw xar amul. waaye ñu ngi yaakaar ne dina am wala wala du am ci ci màggal. Ah, fi mu nekk daal wax dëgg waaw danay dana am nag mais du du mel ni mu parce que ñu ngi ñu ngi wax ne xar euh, pour problème Sénégal ak Mali bi moo tax xar du bëri parce que xar daan bari mais léegi foo dem loo jëndoon fukk loo jëndoon euh, juróomi junni tey boo fa boo fa demee juróom-ñetti junni wala fukki junni lañu lay wax mhm. waaw xar. kon mën nañ euh, wax kiilaa yi nga xam ne dañuy ñëw di màgg si ay fasante ko ku ko mën a am bala ngaa ñëw. voilà loolu moom lu jar lu lu a wax la bu nit ñi dégg ku mën a am xar daal balaa ngay ñëw. seetal bu fekkee man nga ko am nga am ko boo ko mënta am nag boo ñëwee fii nga nga démerde waaye nag pour nga nga am ko nag moo moo moo gën a yomb moo doon gën a yomb ci yow waaw incha allah. Euh, lan ngay wax gan yi nga xam ne dañoo war a ñëw fii màggal Porokhane. waaw maa ngi leen di wax dal ak jàmm rek mm, ñu ñëw ak jàmm ñibbi ak jàmm fekk ñu bu ñu ñibbi ñibbi ci jàmm bi daal rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu màggal si euh, borom borom bés bi borom bés moom borom baax la borom baax la waaw incha allah. mbok yi batay ñi ngi fi ci Porokhane euh, ñi ngi ci euh, fekk ben commerçante mu jaay alimentation di jaayale xéetu boisson gi demo noonu ku ne xamna dañ koy soxla ci magal gi soxna ci magal lay nuyu. ay ya lay fay. tour bi nakala Mariama sek Porokhane. wa soxna Mariama maam Bousso yow yaa borom magal gi ñu fekk la fi ngay jaay allah dañ koy soxla ci magal gi jamono ji lan ngay wax client yi ci walum boisson yek euh, li ñi soxla ci walum alimentation man nga dalal seen xel ne luñ soxla dinañ ko mëna am wala nan la fa démé jamono waaw mun naa dalal seen xel bu baax na leen fii moom dëkkub maam jaara moom kenn du fi bëgg dara mu jafe waaw lu fi waaye bëgg rek boo ñëwee muy soble muy pomme de terre bu waasaw lu mu mën doon rek waaw boo ñëwee daan ko yembal bu soobee yàlla. Euh, prix yi ci wàllum soble beeg pomme de terre yooyu fan la toll jamono soble moom kilo mu ngi jar 500 pomme de terre 800 waaw foofu lañ ko yemale liñ doon jaayee rek ba tey moom la ñuy jaayee yokkuñ ci dara. Ah, déedéet yokkuñ ci dal ci li wàll soxla ci wàllum boisson yi gi non tamit man nañ japp ne man nañ ko wa boisson ba tay wa mën na nek wa te do am benn jafe mom wa euh gan yi bu ñëwé ñëwee léeg dañ nan am problème glace ak yi demee non est-ce que man ngeen dalal seen xel. waaw loolu moo tax ma ba ndox mi gisoo ndox mi fi yépp ay bureau la ak fi ci gidi bané wa man na ay 40 bureau wala ay 50 bureau kay wa pour ku manki ndox rek bo ñëwé man na la jox ndox sobe yalla daal euh, waaw euh, waaw bëgguma kenn daal ñëw fii ñu jógee loo xamante ne mooy loolu daal waaw nañ na leen soxna jaara tàccu ci jàmm delloo ji leen ci jàmm barke Sëriñ Tuubaa soxna jaara waaw yàlla daal bu fi kenn ñëw di fi am benn problème ak benn coono na ñëw ci jàmm ñibbi ci jàmm barke sëñ Fallou. jërëjëf mbokk yi ku ne màggal ne bernde waaye naan lu sedd day am solo lool ci li nga xamante ni moo di ndajam murit euh, ñu ngi fii nag euh, ci ci Porokhane macha allah euh, ñëw taxaw ak sama jëriñ ji ku baax tur bi naka la. Modou Ndiaye lañ koy wax. ñu soxna Ba ñu ñëw fekk leen fii ngeen stocké ndox mu doy boisson bu doy ak lu mel ni ak yu deme noonu fan ngeen toll ci gi ak ndax mën nga dalal xelu client yi ak ujaaj yi war a ne lu ñu soxla ci lu seet nañ ko mën a am. bu baax a baax a baax Cheikh ñoo ngi leen nuyu bu baax di leen ziar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne wax dëgg yàlla moom dañoo bëgg mboolem koo xam ne ngaa ñëw pour màggal gi maanaam lépp tawféex moo tax ñu dajale maanaam xeetu baax baax yi boisson ak ndox ceeb. mboolem loo xam ne maanaam nit bu xewloo par war na ko jëf waaw ak ak njóobeen yi ndax man Njaay laa sant <laughs> war nañu dalee ko daf ci nag maanaam lu xéewale nag njagu xéewale koo xam ne ku ñëw rek macha allah moom day tawfeex da nga mën a gis sa bopp bu baax a baax baax lépp rek ngir màggal Soxna jaar gi rek lañ koy def waaw euh, ku ne xam ne ne nit ñi dañuy bàyyi ko ci gox yi fasante ko bari na ci ñoo xam ne dañ ko daan jënd di ko sëf oto mm. te ku xam ne ndox dafa diis mm. boisson dafa diis mm. mën nga dalal seen xel ne mën nañ ñëw ba fii ñu amee ko fi eh, ci lu yomb waaw waaw ci yomb yomb yomb fu mu toll nii kay képp koo xam ne yaa ngi ñëw te yegsee goo euh, nga xam ni maanaam da euh, bëggoon a jënd ay ndox walla boisson wala ceeb ci yoon bi man ak euh, mboolem xetu kanet lepp rek man nga ko baña jënd bo ñëwee fi mom bu soowé yalla lépp loo bëgg nag dana am ndax lii rek am na yeneen i dépôt yoo xam ne ñu ngi war a ñu ngi ñu ngi war a ñëw yoo xam ne am daan fu ñu ko dépôt yu war ñëw moo tax daal yittewoo nga ko rek boo ñëwee fii ak xeetu boisson boo bëgg rek wala ndox moo bëgg rek moom soob yàlla boo ñëwee dana xewale mu mel ni gis naa fi sax euh, énergétique waaw yooyu xeet yëpp mi ngi fi lépp mu ngi fi lépp moom kay bitig bi moom euh, Sikar Poroxaan nag la kii bi tudd moom waaw moom la moom la moom la bitig bi tudd Sikar Poroxaan moom la tudd non non non yokkul yokkul moom ñun fii moom yokkul fii moom yokkul non fii moom njëggi xéwale moo fi nekk waaw. 50 kilos la wala 25 kilos la. 25 kilos waaw 25 kilos moom am na 8500 euh, mooy mooy mooy euh, entier bi 8500 la ndax dafa am intermédiaire am am am am entier mais ñaari ñi nag ñoo bokk même prix mooy euh, intermédiaire bi ak bréché bi ñoo bokk même même prix moom 8250 lay jar. 8250 waaw entier bi loolu nag te ceeb bi nag li si loo mooy. fii lañ ko bayee. xam nga loolu moom mooy li gën a garaaw amul du importé jëlewuñ ko ci gaañu ngi fenn Sénégal fii lañ ko bayee di waalo nga xam ne maanaam usine bi koy liggéey ma nga jurubeel macha allah doo koy defar ba mu set wecc wecc wecc wecc benn xeer boo xam ne da nga koy lekkaale maanaam dii la indil ay jafe-jafe amu ci amul benn tànn boo xam ne maanaam da nga koy da nga koy da ngay tiim bi maanaam di xaw am sa appétit di yàqu amu ci bool bi daal bi nga ko moom ki ko togg moom waaw taarkalla moom koy da ngay lekk doo am accident affaire moom boo boo lekkee boo naan ndox rek yëf moom moom maa tuddee am ceeb birigi bi maa ngi tuddee moom muudaake daanaka boo yéexee boo boo yéexee kii cin li moom daanaka mu seey ci biir ndax neexu togg yomb gi yomb diw gi loo am si diw rek mu toggal la si ceeb mu tooy xepp tarkal waaw <laughs> kon macha allah mbokk yi ñu bàyyi xel dégg ngeen ni mu ko waxee moom xam naa ne nag jóobi ni danañ ko sumi tarkala ndax li ñu lekk rek la fi jaay waaye euh, kii dalal xel yi ñi nga xamante ni ñooy waa ji ñëw fii ci màggal gi euh, une semaine rek dox suñu ak màggal gi muy jeudi bi ñu dëgmal incha allah kon nañu dalal seen xel ci wàllum naan ak yu sedd ak euh, sànni ma ci ñaari kàddu rek la yow comme comme soxna jaara moo woote lan ngay wax ñi nga xamante ni mooy sa mbokk soxna yi ñëw fii Porokhane dinaan asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen ñëpp ziar naa leen di leen jox seen wàccuwaay waaw fii de mooy sikar Poroxaan waaw am na fii ay ceeb comme ni ko kii waxee rek euh, euh, ak en tout cas boutique alimentation la daal lépp lu nit bëgg ci lu loo xam ne lu jëm si alimentation boo ñëwee fii incha allah di nga ko am si njëg lu xéwale waaw di ñaan rek ñu màggal ko ak jàmm rek ci barke sama ñëw fii ngir ah, waaw suñ ñëwee rek comme nuñ ko daan defee rek ñuy jaar si boutique bi ñu jaay leen ceeb euh, bu xéwale euh, ak ndox yi sell ci anam yu euh, ci prix yu kii daal. prix euh, abordable daal waaw suñu faree ñu jaar fi daal bu kenn manqué na ñëpp ñëw daal jaar si kër Poroxaan daal mi ngi nii lépp a ngi fi waaw waaw nañ ñëw ñu daal ak jàmm fii si Poroxaan maam jaara léegi leen dañu topp ci Baol TV lépp loo xamante ni euh, soxla ngeen koo xam rek incha allah danañ leen nga xamante ni ñooy bàyyi xel Baol TV lii lañ leen jëlale woon tey jii ci reportage bi ñu doon amal fii ci Poroxaan duggal nañ leen ci marché bi waaye tamit dem ca daral gi ak mboolem dëkk bi euh, waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk di waajal màggal gi dégg ngeen li nga xamante ni ni mooy kàddu yu ñu jëlee ci ñoom muy lu am solo tarkaal la kon mbokk yi nga xamante ni ñoom ñëw di waaj pour ñëw màggal si nanu bàyyi xel bu baax a baax bu ñu ñëw seen ay jumtukaay euh, ci ci mel ne wàllum berne yi ak li nga xamante ni moo di kàtt yi ak nag yi ndax euh, gis ngeen ngeen ko ni ko ni ko waa dara li waxee euh, jëm na ci seer ndax Mali yi nga xam ne dañ ko tëj da ci indi ay gàllankoor kon nañ ko fàggu bu baax a baax bala ñuy ñëw kon mbokk yi wéy leen di topp Baol TV wéy leen di partager ak di abonné di cliquer suñu ay kolos ngir vidéo yuñ fi jot rek ngeen mën ko jot euh, yooyu vidéo yi ñu ngeen mën ko jot ci daar daar bi di leen jox dig daje ci kanam tuuti ànd ak yéen ci bisu xasida bi incha allah kon bu leen puus bu leen rànd ci kanam tuuti ñu ànd ak yéen ci bisu xasida